Mala... yes 17... le 17. Ah, le 17. moi suba. it's a do or die Il yes. it's a do or die. yes. totally. il faut sénégalais les suba 17... Ousmane Sonko le suba lañ koy dindi histoire politique du Sénégal. Parce que je pense que beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris la différence entre l'article L29 et L30 mhm. article L29 nous nañu dañ koy dindi ci liste du temporaire c'est pas temporaire c'est d'office définitif mhm. article L30 moo koy génne ci liste temporairement te suba li nga xam ne moom lañ ko bëgg a attee li nga xam ne moom lañ ko bëgg mhm. pour nous, exclure ko ci liste définitive. définitivement il faut sénégalais yi ngeen xam ne injustice boobu benn doomu aadama waru koo nangu jël leen mégaphone yi ngeen ndox ci tali dakaar yi yëpp woo ñëpp ñu génn suba woo leen ñëpp ñu génn Amérique loolu moo fi am fii la ñu nekk ñu ngi state building yéen a ngi koy gis nii ñu ngi fii state building suba ñun ñëpp fii la ñuy daje onze heures du matin benn sénégalais du manqué maanaam loo bëgg a wax gars yi dix heures dix heures euh, euh, merci beaucoup li nga wax lu leer nañ la suba la la ñuy la ñuy dog buumu jaam bi wala suba la ñuy nangoo doon ay jaam ba faw li jot a xew Sénégal nag depuis l' indépendance loolu dafa avant même l' indépendance ba indépendance loolu dafa doy sëkk mënuñu toog sénégalais mënuñu toog yàlla wàccoo ak ñun joxuñu 32 ressources naturelles yoo xam ne benn bu ci nekk mën nañu def un pays développé ay nit ñu mel ni Macky Sall di toroxal africains yi di toroxal sénégalais yi di jël suñu alal di ko di ko asaaloo ci biti ñu nekk ci ndol gu metti ku bëgg faju mënul faju ku bëgg jang mëno jang ci école yu baax lekk bu baax sax mënuñu ko fexé ba am ko alors que ñun tubaab ji ñu fi fii ñu nek ni ñi suñu dekk lañu waron waroon ñun ñu employé leen ñu nek ñun ñu nekk suñ seen employeur donc loolu yalla buñu baxé ku melni Ousmane Sonko waruñu tok di sétane ba Macky Sall di nërmeel loolu de toute façon Macky Sall sénégalais yeen ñëpp vous êtes témoin que le pire ennemi de l'Afrique ou du Sénégal c'est Macky Sall le pire ennemi de l'homme noir c'est Macky Sall Macky Sall africain sénégalais bu ko gën a bon ci kaw suuf yàlla sakkagu ko gëm a xam wala qui a bëgg sa réew mënta mënta yow ngay gis a wala a ngay jël xam dañ ko soxla dem France français ils sont donc si fekkente ne yàlla may nañ ñu am ko mel Ousmane Sonko ñu ngi ñaan suba la suba a jamais wala suba ngeen nangu Sénégal mo xam ñu fi nek la Amérique moo xam ñu nek Sénégal suba nga la nangu ñu tak bu suñu baat gan ñu ko kan ñoo xoj ñu gën nek nekk Mali ils sont complètement libérés ñun on est là di taw té pourtant ñun ñoo nek porte standard Afrique donc ñu ngi leen di ñaan suba venez sortez massivement maire yi ngir yalla gën leen paa yi ngir yalla gën leen amul naan jeune yi ñoo affaire bi jeune yi la concerné paa yi génn leen yéen jeune yi wax leen seen papa violence mais sortez massivement vous dem wan Macky Sall que Ousmane Sonko lañ bëgg mu libre ñëpp Ousmane Sonko lañ bëgg fal mu président que le mu ah, bébé Amadou Ba niko le Dame bébé Amadou xam naka la naka bébé Amadou n'est-ce pas koku qui njiit mënul ko ko ne koñoon sax buñu ko gagner Macky Sall bëgguñu ko forcer lolu Senghor defoon nako ak Abdou Diouf gaay bay ko mu jall Macky Sall bëgg ñu ko def lool duñ ko nangu en tout cas ñun fi ñu ngi taxaw tam suba inshallah rabbi wa New York ak wa États-Unis partout ñu ngi leen di inviter ngeen ñëw fi State Building en masse à partir de 10 h ba 14 h bu leen nexé sax mu ngeen fi julli juma waxtu juma bu leen fekkee mu nga mu nga fu julli légui luñ leen di ñaan ak wa Sénégal ngir yalla ak bi bu leen sétane suba Macky Sall di faxas di faxas Ousmane Sonko en éliminant Ousmane Sonko Maxal, c'est le Sénégal qui est en train d'éliminer c'est le Sénégal qui est en train d'offrir aux Blancs Nous ñun mënuñu Mali libéré Burkina Faso libéré Niger libéré matière sortez en masse suba sénégalais des choses, nous sénégalais ay gor en France ni que en a marre de vous ngir sortez en masse pour venir libérer Ousmane Sonko merci beaucoup. voilà. je pense que comme ni ko sama frère bi waxee léegi lu li li ma waroon wax yëpp moom wax na ko suba state building waa Amérique waa Amérique yenn fi ngeen war a daje cent vingt cinq la ak septième avenue à dix heures du matin fii la ñuy fas yéene julli jumaa sax bu ñu ko yàlla mayee incha allahu rabbi suba ñëpp la woo ci state building bi fii Adam Clinton Power

ñi jaar Brésil ak ñi nek Amérique bép sénégalais bu fi né té nga xamné ne banditisme état yow bëgg nga mu fin yeen ñëpp am ngeen responsabilité pour ñëw fi inshallah rabb suba la nak le 17 suba suba moy point final terminus comme ni ko Ousmane Sonko di waxé ak gassi suba abana suba la na ñëpp ñëw dajé fi suba am nañu responsabilité devant l'histoire on a une responsabilité devant l'histoire bu nous toogee ñu seetaan ñu saax histoire du Sénégal bu boobaa kenn ci ñun amatul lu mu kaas bu ñu bàyyee suba ñu jàllale banditisme jéem a Ousmane Sonko jéem a sénégalais yi bu boobaa ñun ñu xam dans le lu dal Sénégal on est les seuls responsables ndax képp ku ñu noot sa population nga n'anguko. ko ci yow la dépendre Nelson man eh, kii waxoon nañu Thomas Sankara nous a dit une jeunesse mobilisée effraie même les bombes atomiques jeunesse bu taxaw même bombe atomique qui dañ ko ragal te amul ben jeunesse bu jóg taxaw depuis temps yonent Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam te yalla mayu leen bëgg jeunesse bu taxaw yàlla may ko li donc la jeunesse sénégalaise je vous appelle encore massivement demain Inch'Allah, partout dans la diaspora et dans le monde et surtout au Sénégal Yen ñëpp ngeen ñu dem présenter Ousmane Sonko suñu candidat ne Macky Sall il faut mu xam ne moom mënul nekkati président Sénégal te mënuñoo waxati kan la ñuy tànn comme candidat ton dernier mot grand malam mon dernier mot ça va à waa Sénégal yéen xam ngeen coono yi ngeen di daj Sénégal gis ngeen ñoom Macky Sall milliards yi ñuy sàcc façon dundun bu ñuy dundee foofu gis ngeen seen kër yi gis ngeen seen oto yi cent millions yi alors que ni ñi amuñu lu ñu ndekkee amuñu lu ñu añee loolu c'est injuste bu leen ko seetaan bu ngeen ko nangoo comme ni ma ko waxee

Euh, benen affaire bi ma bëgg leen a grand Macky Sall ak policier yi ak ces nervis là na ngeen xamni on vous surveille de près la cour pénale internationale vous surveille de près de près donc sénégalais dañu xamni ne ñoom de toute façon duñu leen def mënal kenn dootu fi nekk naan dañuy tirer nit ñi ci mbedd ndax ñu leen gisul képp ko xamné ne def nga fi faute tôt ou tard tu seras emprisonné à vie fi may les grands moy wa fi wa Amérique ñu ngi fi ñu ngi xoslu grand bi day liggéey damay liggéey dañuy bàyyi suñu liggéey am na njaboot am naa sama njaboot ay njabotam ñi ngi fi gunge ko sama njabot ñi ngi fi may war dem jëli li bëgg waxé fofu moy on se sacrifie parce que Sénégal moñu ko jaral dañ leen ni koy ñaan suba même bu dee benn trois heures temps ben 4 heures temps na leen ko jaral ngeen wax sen boss yi wala ngeen arté sen liggé ngeen ñëw ñu xéxal Sénégal Sénégal jarna lu raw ben jour de travail li ngeen am par jour suba li ngeen nar liggé suba ba am ko su suñu falé Ousmane Sonko jàpp leen ay ati ati ati ati xaalis mom mo nek en jeu donc je vous demande encore une fois je vous di supplier ngeen sauver Ousmane Sonko du vampire Macky Sall ak i ñoñam merci beaucoup. gars nous ñu ngi encore rendez-vous bi demain terminus c'est demain sénégalais yep, à travers le monde entier nous ngi leen di xaar bàyyi leen kekkantoo yi bàyyi leen defante yi nañu nañu diversion yëpp nañu leen de côté on a du temps Nous, yëpp dinañ ci aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui demain c'est demain suba mooy terminus gars yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dig daje 10 heures du matin insha allahu rabbi right here state building merci tomorrow wa asalaamaaleykum wa rahmatullah